aara ci boppam ak Deyse ci boppam bu leen neexee kii toog fii kii toog fii may tegal kii lu métti muy tëj mooy di tegal kii lu métti bu ñu bàyyee sooy teg yaakaar di teg lii muy génn sama teg yaa xam nga xam nga ku ko ñam di nga ñam lu gramme di nga ñam lu ëpp ay milligramme ci kaw teg bi ngay teg yaakaar day teg di génne sama teg si blende teg de raan ma jub la jox la ka taafu indi gën a di daw yaa ko blende teg the la delloo ma pindi pindi da wàcc suuf tuuti da wàcc ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk yaa ko blende mel ku tàkk ay ndomba cristal yi flow li may rab mu mel ni benn bomb fu nekk lay dal day ñor xomb gars yi taxaw di dem ba ko jaral fii ba xomb yaa ko blende di teg indi génne sama tech. loo ma teg laajal waa ak lu biig yaa ko blende di teg di génne li may génne du jaar ci biig li may the a gaaw yaa ko blende di yóbbu the fit Kau toppee dama lay tëdd ni dengan da ngaa dof wala wala xamoo ne man dina nit waxal kaw bi tengaayam danaa gis ñun ko parti bi ak I'm def loo def ma def ko nii lii mënoon def li may def lay loo def ma def ko nii damay rap yi gën a gaaw di rap a gaaw freestyle yu flow dafay mel ni iron texte soo ma toppee ci freestyle dama lay fekk di galax xanaa xamoo ne taw booy dam naa fooy def foo berger fii boo fi ñëwee boo amul foo fanaan ñu ne

nga bon xanaa xamoo jàpp bu may way ci côté bi moom mooy fecc nii may teg nii gars yi taxaw filmé teg ci gétt di ci gétt ngar yaa ko benn teg li muy mel ni li kenn daf koy teg ci benn yàgg naa koo teg ba koo gëndee bi ma dëgg teg di kër kon gis nga booy gaa yaa ngi taxaw nii di apprécié tey géeja waay foog mu yëngu nii gaa yaa ngi nii yor ay fan foog ay iphone jar bu ma ci sopp dala maa ngi ni damay ma iphone mais Sidi sa soon naa la bi ne génne sàmm taa gisoon naa la yàgg Yeah, they went on some about me. Boleh kisade, nelen gabe nene sana rapa. Kita cukup dikit, mulai japu yo bacima. Nelen kita sambu, kata feed in the young Gis na boy la 2 décembre Danga nee na ko teg la ci potu sambal Dafa ne eh maa ngi ni di boo Ne ne bët si yëpp si Si di ci tag boy ci taxi Eh boy mais fan laay gisee boy man taxi Dama teg sama rom Eh kaay di dëkk taxi Heads up Put your hands up